asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi seen mbokkum taalibe Moustapha Guèye taalibe sëriñ Moustapha moom sëriñ Massamba Mbàkke di soppeeb sëriñ Mbàkke moom maam soxna loo Jóob Taïf di ànd ak sëriñ Cheikh Aliou ci liggéeyal sëriñ Touba moo dellusiwaat siwaat fas mottali li nga xam ne mooy tomb waxtaan bi nga xam ne sumboon nañ ko te yàlla dogal ñu toll nag ki juróom benneelu numéro bi nga xam ne moom lañ leen bëgg a tëjale point boobu ba mën a jëlaat yeneen muy loolu nga xam ne moom lañ doon waxtaane rek te muy feebaru xol muy am radal aqlab muy loo xam ne lu yaatoo yaatu la te ñi mu dal ñépp bari na ci ñooñ yëg nañ ne dal na leen waaye nanguñ koo faj bari nañu muy yoot te jéemuñu koo dindi waaye am na ñum gañe ba faj weesu na ca ñoom wala istaasu billahi ci lool nag waxoon nañ leen ca njëlbeenu ubbi teg waxtaan wa ne leen installation iñaan mi ngi tàmbulee ci xemmem teef ak bari ay mébét ndax ku xemmem dara rek da ngay bari mébét te ku bari mébét rek ubbi sa bët rek daat koy fas yéenee teg ci ñi la raw walla ñi nga jàpp ne raw nañ la boo leen tegee gët rek la cay teg la cay topp mooy jéem leen a roy te boo leen jéemee roy rek boo ca yàlla dugalul nga war a mel na ñoom rek nga daal di tàmbalee gas ay kàmbu di ca dugali ñàngoor ak a gar ay taxas di teg ci kanamam loola nag yàlla nañ ci yàlla musal kon képp koo xam ne si daal yaa ngi bari ay mébét ak xemmem téef bu yàggee rek ñeetaane daal di dugg te bu ñeetaane duggee rek roy dugg bu roy duggee nag boo tëlee rek jafe-jafe yooyu tàmbalee ñëw juróom benneelu waxtaan wi tey ñi ngi ko jëmee ba tey ci man màndargam ko iñaan rawatina nag ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi nga xam ne mooy réewum tubaab yi iñaan dafa dem ba tasaare solidarité bi daan war suñ diggante te solidarité dafa baax ci lépp solidarité alxuraan na ko njëkk a digle waxtasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu wa taawunu alal birri wa taqwa wala taawunu alal ismi wal udwan loolu alxuraan nañu ko digal booloo ak dimbalante xëy ndeysaan da gis koo xam ne day dem ba jafe-jafe dab ko ci réew mi moo xam mu feebar moo xam mu ñàkkub liggéey waaye da gis ne solidarité ba ca war dañuy lank tey boo ko doon laajal tey wër sa yor sa mbuus dugg ci kër di laaj mën naa am la ngay indi du bari ay weccat yu sew ndax am na ñooñ dañ cay def te yàlla tax waaye ña ëpp ci ña gàntal nag du séenub tële waaye jàpp nañ ne la ñuy calcul ne buñ ko ca defee kee def ko ca jàpp nañ ne loola ab lim lay doon te buñ ko ko joxee dana ko jariñ te ba tegit it ña ngay séentu ne mën na caa doxe soqale ko loolu nit ko iñaan dana ko faral di def nit daana jeexal ab séjour war koo renouvelé lañ ko cay laaj amul fenn fenn fu mu ko mën a jëlee lu dul yaakaar yam am ci jafe ne bu lebee des na ko lebal ku mu jub nga yëkkati say loxo ne ko tëniwuma la ndax lañ ciy jublu ñu genn wàll ga mooy nañ fexe bañ koo am ba ñàkk ko bu defee ñu mën a toog nag di ko waxtaanee ngir raw gi nu raw mu mën a delluwaat ci gannaaw loolu nag yàlla lees di déclarer guerre ndax ku dem ku nekk yàlla la demal ku taxaw ku nekk yàlla la taxawal nga xam ne dund ak dee ku la ko doon laaj ba àddinay tukki doo ko ko jox lànk lay boole ca lu dul wax lu dul dëgg ngir bëgg mu tàggoog yow te fu mu la wane gannaaw rek nga commencé saxol sedd guyy ngay reetaan naan ah xamoon naa ne lii dana ko dal kii nangam nangam daal di commencé nag non seulement nga muccate ci moom di ko génneel ay tuuma di ko teglu day doy te dara waralu ko lu dul rek la nga jàppoon ne moo la ko raw wala même bu la rawul it lam yor bëggoo mu am ko. loola moo tax loola di am da nga gis ku dem Sénégal ba ñëw ndeysaan tollu ab diggante teg ñëpp xam nañ ne ku nekk ci réew mii dem Sénégal booy dikk da nga sonn lool boo fi bayiwul ab liggéey da nga sonn boo fi bayiwul leneen loo mën a tàmbali da nga sonn kon foofa la bu fa solidarité amoon tey bu yees dikkee mënees na jàppale jëmm yooyu teg leen ci place làmb seen ñàkk abal leen ñu tàmbali yar seen i activité ba yàlla soppi jamono ñu delloo leen waaye daanaka dañ ciy sawar lool lu nit gën a yàgg senegal rek ña ngay kontaan naan nangam dana ko fa dal këram ga dana ko jaay am na ci ñoo xam ne si sax ndeysaan doy nañ waar lool boo tolloo ci diggante boobu ña ngay commencé xool bien yi nga xam ne rawee nga leen ko muy oto muy kër muy place muy matériel booy jaay ña ngay commencé di euh, wata ñaamu ngir bëgg a xam ba xam boo sonnee da nga ko jaay wala doo ko jaay mën nañ la ko wax direct wala ñu yebal fa nit wala ñu am kuñ la booleel ko xam mooy ñëw di la ceddoo ñu yëkkati xaalis jox ko ne ma ba xam place am bi koy jaay wala jaayu ko xam naa ne fi mu sonn na su ko jaayee nga jëndal ma ko nga xam ne loolu rek nga mës a teg ba mu ci bët wala matériel wala oto loolu gis nañ ne yaatu na loolu lépp ak coxarte koy def. cooxante googu danga gis ne da nekkal sa moroomum taalibe fii walla jullit yàlla rawale ko ba du ngeen tolloole lu ngeen di am cib liggéey loolu liggéey suñ borom la nga yàgg ci réew mi lool xëy na yàlla jagleel la ne ab tabax foo terrasse nga ca am a ah, santoo yàlla ca loola ndax bari nañoo ko tane sa morom mujj a ñëw ci réew mi wala muy koo bokkal wala muy koo xamanteel yàlla may ko terrasse ba mu commencé di teg ca kaw nga commencé wër dëkk bi lu ne nga di ko wax di ko sosal di ko ñaawal ngir bëgg rek nit ñépp commencé ko sot ba tuumaal ko tuuma joo xam ne sii ca ngay féexali sa xol ngir li ko yàlla defal loolu gis nañ ne yaatu na lool sax nag yaatu na lool yaatu na lool gis nañ fi kuñ fi tuumaal ne day jaay dorog gis fi kuñ fi tuumaal ne day wiyoole gis fi kuñ fi tuum ne day changé xaalis kuñ fa tiim na day jaay fals gis kuñ fa tiim na te loolu lépp coxarte googu moo koy waral bari na ci ñoo ñetti ne ay nit yi ñu rentre fii ci hôpital ñu daan liggéey am ay bien lool am ay pàkk ay place ak ay lépp rek ñu am ko ci Sénégal day àll wërsëgal leen lool ñu dem ba jàngoro dab leen ñu entré leen hôpital ban yàgg fa lool waaye ñi soxor seen xel yépp buñ sañoon du jógaat danañ ko dem di seeti sax ba xam fa étape ba toll ak di laaj lu ko dal am na ci ñooñ bu leen yàlla nattoo jàngoro ji yu doy waar yi nga xam ne day dale nga xam ne kumpa lay doon ci nit ki docteur yi dañ koy nëbb nga xam ne seeni bokk la bu toqee seen nopp rek ñu daal di koy tasaare diw yëg ngeen ne nangama ko dal diw yëg ngeen ne nangama ko dal daal di commencé di woote ca réew ma am ci ñoo xam ne si dañ koy wax seeni soxna sax ñu dem ca soxna yi kooka ne ko diw nangama ko dal docteur yi nee nañ day nangam loolu yaakaar naa ne yaatu na te am na ñu baree bare bare ñu koy def nga xam ne yow daal loo am rek fokk ñu wut luñ teg ci gannaaw ne nangam a tax mu am ko te tuuma yu bon dong la ñuy yëkkati waaw bii société nag ku ciy dunde noonu te bëgg mucc fooy jaar ndax yàlla moom kenn ku ne sa yéene la lay fay lu ahmalu bi niyati wa innama li kulli imriin man na waa li nga yéene nit ki nay doon yéene ju rafet bu fekkee ba ngaa mel na moom ndax yéene ju rafet dana tax yàlla féexal la dana taxit nga féex ci àddina dana taxit foo toog am leer dana taxit yàlla di la jàppale ci lu bari waaye bu sa bët bi tegoo ci lu naat rek boo sañoon loola daal di wow koŋ loolu yàlla na ci yàlla musal ab jàmm loolu nag ci fànn yépp la yëngu loolu dem na sax ba ci suñu mbokki chauffeur yi nga xam ne ndeysaan da ngay gis ko yorob oto ñu embauché ko muy dawal gis ko la dàq oto fuuf yàlla ubbiloon ko wërsëg ah yàlla dogal nag barab ba ngay liggéeyee am beneen place bu ñu war a joxe waaye coxarte dana tax buñ ko ko diggee wala nga gis ñu jox ko ko nga daal di dem gisee kooka ne ko kii nga jox sa oto bi xanaa xamu ne nàngam nangam ak nangam la ciy def bu wàccee oto bi du daw li muy daw li muy li muy versé ak li muy am duñ benn nangam lay dugg këram ba xelu jaxase xelum kooka ba mu jax-jaxee xëy daal di nanga oto ba te fekkoon na ci la yor këram ci la yor lépp loolu lépp am na bari na ci ñoo xam ne it ci wàllu soxoor gi boo doon jaay tey am njaay ñii xëy di liggéey ba sonn ñu jàpp na yaa ngi tedd te coono ba leen di dal gaaru la te nga xam ne yàlla doxale noonu jamonoom suñ ca naree jën na ci yow jaral na leen jël xaalis booba xotti ko wala ñu dem dugal ko ca toilette ba jaral na leen ko waaye fa suñu yéenee jënd ci yow un franc te luñ ko nar a defee ci yow génn dem jënd ko ca tubaab ba loolu nag ko ci solidarité am nañu nit ñaari nit ak ñett buñ gisee ñu jël ci yow dara dindi xaalis fay la mu wóor ko ne maanaam. yàlla nii la doxale jamonoom jaral na leen leb la loo xamee ne nii jàpp nañ ne buñ la ko lebee da nga gàllankooru dig la bis ne la boo ñëwee ma jox la ko di wër-wër loog yow ba loola mujj nax saay lañ ci jublu mooy bëgg laa gàllankoor ba nga daanu iñaan googu gis nañ ne dem na ba ci biir yàqalante googu yi toog ca kër ga di jaay di grossiste di yor say bagage di jaay lal ba ngay tëdd di jaay boo wàccee di jaay yow nga dem ca riiba di jaay sonn lool àgg ñu sotti la wala nga ñàkk a jaay nga iñaane kooka dem ci autorité yi <coughs> daal leen di jox adresse su kër gi jox leen turuwaa ji wax leen li ngay jaay ñu xëy xëy xëy daal di ñëw ne ërtal kër gi daal di jàpp waaja sotti bagage ya su ko defee moo lay njëkk a jaale si bu ñëwee la muy jëkk wax loolu xam naa ne naar yi la rek naar yi dong la de fekk naar it naar bu weex dafa am naar bu ñuul am loolu moom puroñ yi rek ñoo koy def loolu it gis nañ ne day am bokk na ci loolu tamit gis nañ ne da dem di Sénégal di yóbbu di di ñibbi nit la xaalis waaye xëy na lam la yóbbante moo ëpp lam la ngay yóbbal sa bopp nga dem fexe def bay tappale dem triané ko nanguwoo joxe xaalis ba fay sa téléphone ñu dëkke di la woote duñ la mën a jot ngay lay ak a sos ci lan laa def nii laa def ne ngir bëgg koo gàllankoor loolu lépp gis nañ ne am na ci biir iñaan googu it gis nañ ne nit nangu na ci soxnay jàmbur ngir iñaan gum ko iñaane dem sosal ko mu jaral ko dem ci ab sëriñ sax di ko lëggéey ngir bëgg koo féewale ak moom bu nu féewalee rek mu jaar ci fenêtre boobee daal di dem dugg yooyu yépp ay poñ la yoo xam ne sii ni mu toll kenn mënu ko wax kon daal soxor moom ak iñaan genn genn genn genn genn mbokk gi la ab néeg la daal boo xam ne sii ñépp a cay fanaan waaye nag baadoo la ba moo cay biddanti mooy ki la koy wan di ko mën a feste du la ci nëbbu dara ba dara booloo rusu ci dara amu ci kersa ci dara loolu lépp nag yàlla na ci yàlla musalub jàmm xam naa ñi ngi bàyyi numéro boobu jàllaat ci beneen insha allahu des na ci xuusaat ba détails yi ci pièces yu bari ci suñ kem kàttan wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf